ñu dal di rek wéyal waxtaan bi ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Alassane Sall di candidat ñu dal di koy eh, dalal bu baax eh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa leen di fay. dalal jàmm ci 7TV tey nga ñëw di teew ci li nga xamante ne moom mooy dialogue national bi déjà naka nga gisee jaloog bi. waaw eh, xanaa santaat yàlla bu baax li julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey peuple yu mag yi ci àdduna bi yëpp. saa yi ñu tollee ci yenn jamono dañuy waxtaan man président de la République yaa gën a woote dialogue deewuma ci maa ngi nekkoon ci élection yi ma gis sàcc gi nga xam ne sàccoon nañu ma ko ci wàllu doxalinu suñu parrainage ma gis injustice yooyu yëpp am ci ak wàll guerre gi nga xamante ne wax nañu ko te lu bëri nag fës ci wàllu doxalin bi bi ñu wootee tey jii ne dañu jëm ci dialogue bu mel nii ñu ñëw teew ci ànd ak le collectif des spoliés teew ci waxtaan bi léegi la président de la république recevoir nous avons eu trois tours d'horloge ci waxtaan wax li nga xamante ne neexuñu ci yëf yi ak waxtaane tamit réew mi ak jëm-jëmu jëm-jëmu réew mi moo tax tey nga gis salle bi mel ni toutes les forces vives de la nation sont là et avec courage et responsabilité nous parlerons de notre pays nous parlerons de ces élections nous fixerons la date ensemble parce que réew dañ koy penco dem ci élection yoo xamante ni dafay nekk une élection inclusive une élection transparente pour que Sénégal fii mu jëm nii muy ce nouveau cap avec le pétrole et le gaz li bàyyi ko Tchad bi Idriss Déby gaañoo ñu gis ne y'a cette crise qui continue ñëw ba suñu ay frontières ñun intelligemment comme une grande nation ñu fexe ba loolu du tàbbi ci réew mi nga xam ne mooy réewu Sénégal nga xam ne mooy miroir de d'abord la démocratie séné africaine mais ensuite euh, suñu wax les hommes intègres Sénégal moo tax ñuy wax. tey ci suba njiitu réew mi dalal na leen ngeen waxtaanee lu toll ci ñetti waxtu ndax mën ngeen ñoo wax rek lan ngeen jot jàpp ci waxtaan bi. wax ko wax ko li ne ci biti aussi li ma gëm mooy sénégalais yi lu ñu bëgg mooy dem ci alternance loolu moom man loolu laa gëm. mais waxtaanee aussi le processus qui a été mais waxtaanee encore naka la ñuy def ba fixer date bi rapidement ba nga xam ne kenn du loru mooy ñi nga xamante ne jàlloon nañu ci conseil constitutionnel daal leen tee ak ñi nga xamante ne si parrainage bi lañ leen najoon donc loolu la ñu waxtaanee foofu léegi sax d'ailleurs dina am suñu porte parole du jour dana jël kàddu waxtaanee réellement ce que euh, nous nous sommes dit à l'intérieur et qui va être d'une importance capitale dans les jours à venir ci wàllu suñu taxawaay ci réew mi ak comment faire pour continuer à préserver cette république cette république que nous avons héritée de Senghor de Abdou Diouf et de Abdoulaye Wade. waa ah, xanaa juboo am xanaa jubo su juboo amee jubo bi nag li koy lal mooy déggoo ci kàddu. déggoo ci kàddu lu koy lal aussi mooy une sincérité dans la concertation wax naa ko président de la république d'ailleurs bi ñu toogee ma ne ce que nous voulons c'est d'avoir un dialogue sincère mais su fekk te yàlla yàlla moo ko diglee wax na ne que suñ leen woowee waxtaan dem leen ci leen woow waxtaan su sincèreul maa ngi ànd ak yéen su ngeen di waxtaan aussi waxtaan leen ci yar ak teggin loolu la ñu waxtaanee yar ak teggin boobu pour am solution le président de la république sait qu'il le deux la affaire am jeex Et le 3, nous passons à une nouvelle étape, étape une nouvelle république plus forte, avec une démocratie bu am jotaat bakkanam ak dëkk boo xamante ne koomam dafay ubbeekuwaat mën a jonjoo ak euh, mbagg ak euh, koom yu mag yi nekk ci àdduna bi incha allahu taala jërëjëf merci beaucoup ngeen ko doon teew teewlu moom tamit candidat la boo xamante ne euh, bokkul woon ci élection yi ndax gis ngeen ko ñoom ñooy candidats poli yi mu xam le rek ne waxtaan na ak ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi lu toll ci ñetti waxtu euh, ci bi 11 heures jotee la leen njiitu réew mi dalaloon waaye gis ngeen ko li ñu waxtaanee rek mooy fexe ba ñu fexe ñu reprendre ñoom nag loolu la ñu bëgg ñu reprendre at tout le processus électoral bu ko defee ñëpp mun a bokkaat moo tax nag ñu dal di amal dialogue bu ko defee rek